dama ne du a rafet du yaa bari jàmm du yaa neex a foo jekk taxawaay kanam gi ne gaañi ba di ne weeru xeet du ma ne boo tukkee foofa yàgg ndax kilifa nga bu la fonk jàmm bu la baaga laal lay araam na la waaye jëkkër dagan na la naa is jëkkër dagan xaw ku la ko jàppal ci biir waaye tooñ na ma eh yow moo la tooñ waaye déedéet tooñu la génn time. yow mii dañu kaay da ngaa poosé. poosé lan ah. wéroo li travail de maman la judduwaale la li. <laughs> yaay manquant kunkan bon iñaan iñañani soxor tu es méchant tu méchant vous méchant il ou est avec méchant ni ma la daanee dictionnaire làmb amu ci ba na di tukki doo gis ku ko daanee mbër goos droite talon na laal def dama la moot nga jéggi ma cabaxal nga jéggi ma daw troit pas ngay seize ma lonkal ma lonkal ma lonkal. ok léegi lan mooy sa métier loolu laa la. waxi dof kese. la. ci looloo jaaxal nit ñi si ngay am ay gel. Ah. ñaata gel nga am. quatorze yëpp yaa ngi jënd ak ñoom. Ah, ah. ñoom xam nañ ne quatorze lañ. damaa bëgg ma duñ dem fenn. lan lañ la toppee. waxi ô mon Dieu kañ laay sëy ô mon Dieu kañ laay sëy <laughs> waa yaa ngi tëdd déedéet danaa tëdd man damay bërëngu comme yaa ngi tëdd rek lan moo fi jël damay bërëngu yii kon day yomb te nag looy xamul tànn ah, ah. tànn fan yi sonn naa de fan yii dama safa sëy àll wax fan yii saf naa sëy saab saab <laughs> saab saab may leen ma ma sëy Hey, eh, man wagwan right hand big up dansal sing di bëgg ja pro mama jox ah. rang may takk ay verre kunkang yow da nekk Chine non Chine def naa fa deux ah. bu la neen dip ay doodaan la lay tegal ay mali rek seen ni ñuy làqee moom la ñuy xeexee naan naa dumulu ko i b'a fara n b'a bɛɛ ka naa ɲama o tey i fan b'a fa rang ten taw lakk na dëkk bi yow xanaa neex rang kung ni këririn kankang moo yëngal sunu koñ ten taw kunkan tëgg du biir saa bu ko neexee rek wasin bataaxal bu jóge si diimi problème jëm ci jëm tërim nekk si géew maa da fakkin demini hip hop ten thousand matala from laaxira rëñ ten taw lakk na dëkk bi yow xanaa neex rëñ kañ ni kiririŋ kaŋ-kaŋ moo yëngal sunu koñ ten taw kuŋ kaŋ la ilaha illallah duma sa morom duma sa maas duma sa mappandoo sa géjjee maa ko baas teg ci raxas gaas paaka ñëw ma daas xar mi ñëw ma fees ma dem ci tonto aas mu may ma paas ma si am mata do mu na yu xaadi daan ma da rame ma da balaaje bu ndaw ba bagal lañ na pa ba dudu ba posi la ay yóbbul ma kii ma ne gone gay yaay booram samba xoolal booy booy bu jéego ma lee ah woote nit juum naan ndax dañ ma joxoon sa numéro yow xamoo koy woo koy looy kii kan moo la joxoon numéro kan man. dugalal ba caaka njaay. Hmm. li <laughs> ngeen di bëgg ku ngeen flirté. mooy tuñ kenn du ko wàccee ne kawasu leen. Koupéel damaa seet si Abdou Mazor Koupéel. rek te xale boo xam ne fu mu jaar nag daf fas. lan moo xew mbaa jàmm. jàmm rek a xew. tiit naa ah yaay Vénia. Mm-hmm. bongo pire réew mi. bi ci biim réew bu ma rombee ngay taxaw. Mor aussi. kër gi. ah waaw ko moom. <laughs> nga def ma a ndax la dama di ñeeña bala may sax ku gëm ñeeña bala may sax askanu ñeeña ñu mu risé ñoom xamul ñeetaate dañ leen di ñee Sëriñ Tuubaa ci ko ñaanoon te yegg si na te aba tamit tamit tamit a xam ayaw aba am waaw euh, léegi <laughs> léegi bëggati neen bëgga bu ma fecca la wara ma baada mbay la wara ma tëbal la wara ma oope la la koore naa dara ma bërëngu la man bereg naa la man fecc naa man bërëngu kon loo bëgg ma bërëngu la waa dangaa bëgg ma bëree waa dangaa ma bërëngu kon koore naa nin dafay noon lu bees tàq dem salon moo ko moom di jàpp safaan lu bees tàq ay ba muy moom na yolom ay kajaasa muy yaa jigéen dafay noon lu bees tàq di dem salon yaa ko moom seetin ma mbëya ku ko mën ma may la junni ku ko mën ku ko may la junni yow ku ko mën ma may la junni ku ko mën ci ma may la junni yow ku ko mën ci ma may la junni yow ku ko mën ci ma may la junni yow Allah Allah Allah Allah ay jool ana joom ni ndox waa ko tamit ay kuku ay kuku la neex na te faw ma wax. ndax ki ngeen di gis nii. di Lalla PM Ndiaye. chéri Cheikh Diagne. aaw buuru këram. man aw ma sa fay. kii moo defar Cheikh. ma gis Cheikh bëgg ko Cheikh bëgg ma. mu takk ma indi ma ci kër gi lal la def ma ni rakkam bu ma boqal ndey ak baay. yaatal ma kër gi ba xatuma fi. ma ni yaay yaayu taaw. ma ne bii wujj ko ko am noo di bii wujj saaw bii wujj Thank you. déedéet tey leen tey leen waaw suñu jigéen ñaa yi nga àndal. la sama maam mu ngi géeju sumb jum. ak tippoo ma ko moo ma tippoo. ba ma xoolee damaa rafet wu rumay ra. ba pare. ma sol lu seer. Mm-hmm. def ba mu baax. ku ma ci tolloon jamono mën ngay wër. waaye nag pa maa ànd ak Kumba te mu nga tënge. waruma ko moo ma wër. Pape maa ànd ak maam Ndiare. billaay wëruma ko moo ma wër. su may dox sax doo ma teg kat damay xale VIP ba ma xewee daa yàgg. maa du rek di seet. ñi ma doon fekkuma leen fi et eh, Pape jàngaaniw ma seet dama ko fekk sama kër maam. Mhm. ay ci ñu yëngal gësam ma doo loo wax. <laughs> mais dama mooy mais seet dama bëggoon nga wax ma ci seet parce que am na ñu ne baax na am na ñu ne baaxul am na ñu ne dafay ume am na ñu ne da ngay dafay gis am na ñu ne amul lan nga ñu mën a wax ci seet daba booy. baab li ma la mën a wax ci seet dafa bari ndax dama ne la ki lay teree seetlu sax mu ngi weddi seetlu ba amul tëj sëriñ di seetlu dégg naa nag ci réew mi ñu ne baaxul. nangam man am naa machine noire am naa machine blanc bii ma wax léegi mooy machine blanc. mooy Mazzy Matang UR air avancement joliment sur Matang joliment suisse ko petit chien ay français la mais ñu jàng euh, professeurs yi nekk ci